Je suis venu à Bakel pour euh, apporter ma solidarité personnelle, la solidarité du gouvernement et la solidarité de la nation toute entière. Je veux dire aux victimes de cette situation assez difficile que nous sommes à leur côté. Nous pensons à eux et nous agissons pour leur apporter le réconfort nécessaire sur tous les plans. La situation telle que décrite est assez difficile, il faut le noter, mais il faut saluer en même temps la réactivité du gouvernement euh, à travers les autorités ministérielles concernées qui se sont déplacées déjà dans cette région. Je veux nommer le ministre de l'Intérieur accompagné du ministre de la Famille et des Solidarités. Le ministre de l'Hydraulique en voyage prévoit de se rendre très prochainement dans la zone aussi. Et de noter aussi la mobilisation des forces de défense et de sécurité qui ont réussi à installer dans les délais records un hôpital militaire de niveau 1 et se déplacent même en pirogue pour aller soigner jusque dans les villages les plus inaccessibles. Je pense que c'est des efforts notables qui ont été déployés ici. La situation sur le plan de l'assistance des vivres des, gîtes pour les familles qui ont souhaité être logées parce qu'il y en a qui ont voulu rester dans leur maison mais en, allant à hauteur dans la mesure où ça a été possible. Les familles sinistrées qui ont souhaité être logées ont été logées. Les vivres continuent de leur être apportés. Des kits solaires arriveront bientôt. Et je voudrais en profiter aussi pour magnifier la solidarité de certaines sociétés euh, qui ont amené des kits d'eau, des, kits alimentaires, des kits solaires et d'autres bonnes volontés même qui ont euh, apporté de l'assistance euh, consistante pour venir en renfort à ce que l'État est en train de faire. Je veux dire aux populations, où qu'elles soient sur le territoire national, ils auront notre solidarité permanente et notre action chaque jour renforcée pour leur apporter le soutien et le réconfort nécessaire Évidemment, le gouvernement ne va pas s'en tenir à gérer cette situation-là. D'ores et déjà, j'ai instruit le Premier ministre et le gouvernement, les, ministères concernés, de réfléchir à un plan de mitigation euh, qui peut apporter des solutions définitives à la situation que ces populations sont en train de vivre. Mais globalement, je suis satisfait de la prise en charge. Situation bi maintenant, voyez fleuve bi débordé lu ñu miin pas dimension yi am di doon am bu fleuve bi delluwaatee gannaaw nit ñi ñëwaat pour mën a béy seen mbéy mi am na ñag ñu am ay yàqu-yàqu yàqu euh, ci ci ci tool yi ak ci seen bagage yi ndax nu mu demee ren moom xaw na jéggi dayu trop waaye li ñu bëggoon wax rek ñi nga xamante ne ñu ngi ci situation bi ko mu nekk fii Bakel wala mu nekk feneen ci biir réew mi rawatina fu mel ni Matam dama bëgg ñu xam ne man président de la république maa ngi seen wet di bokk ak ñoom tiis gi ak naqar gi gouvernement bi yëpp mu ngi seen wet di bokk ak ñoom tamit jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi koy dund te foog naa ne bu ci ñoo nekkee seen wét mel na ni askanu Sénégal yëpp a ngi nekk seen wet di leen naqa di naqarlu situation waaye tamit di leen jàppale. bi ma ñëwee fii nag ni euh, autorités yi nekk ci euh, gouvernement bi pour commencer ci ministère yi nga xamante ne ñooy gérer situation bi moom na si ministre de l' ministre de de la famille et des solidarité ministre de l'hydraulique de la l'assainissement waaye tamit ministre des forces armées ñi nga xamante ne lépp lu war ci taxawu def nañu ko bu mu mat sëkk ndax bu mu xewee rek le gouvernement bi dégagé enveloppe bu njëkk pour ministre yi ñëwoon xool am nu ñuy jàppale ñi nga xamante ne fekk nañu leen ci jafe-jafe waaye bu ñu gisee ne situation bi gën na jéggi dayoo noonu gën nañ mobiliser ay yeneen ressources yu gën a am solo pour gën a mën a jàppale ñi nga xamante ne am nañu ay yàqu-yàqu fii ci Bakel ak ci euh, département Matam waaye jàppandal gi dina weesu rek jox leen maanaam fi ñu tëdd ci nekkagum fii bu le temps que ñu mën a dugaat seen kër yi ndax euh, fu mu toll nii armée bi ni ngeen ko xamee defar na benn hôpital militaire bi ñuy wax hôpital militaire de niveau 1 waaye terewul puisque askan wi am nañu jafe-jafe ñëw ba ci hôpital yi armée ñu ngi jël seen gaal yi di dem fekk ci askan wi di leen faj ba ni ngeen déggee ñu waxee sànq dem nañ daanaka def ay intervention ci lépp ay e, fukki dëkkuwaay yoo xamante ne dem nañ fa fekk ci fa ay nit faj leen waaye dinaa tamit e, sargal ñi nga xamante ne ñu ngi ci gannaaw bokkuñu ci état di ay société privée yu ñëw jàppale askan wi indi ndox <coughs> andi ay lekk waaye ànd sax ba ci ay kit solaire pour mën a jàppale ñi nga xamante ne fi ñu leen àndi fii amuñu fi courant te dinañu soxla tout le temps di profito tamit bu guddi jotee pour ñu mën a leeral di xool fu ñuy nekk ak fu ñuy ñuy fu ñuy fu ñuy toggee wala fu ñuy fanaan euh, lii nag dinañ ko wéyal euh, le temps que ñu situation bi dellu deltuwaat ci situation normal bi waaye dinañ fagandiku tamit yeneen at yi di ñëw parce que lii buy xew yàlla du ci tàggu kenn waaye nag ñun ñoo war a waajal waajale noo xam ne bu amee fekk ne li ci war pour ñu jàppale ñi nga xamante ñoo nekk situation boobu lu ci bëri taxaw na ba bu ko defee mu gën yomb ci ñoom donte di jafe-jafe lay nekk ba tey waaye fekk na tamit état gën na nekk à l'aise ndax xam ne lu mu waajal pour nit ñi nekk ci jafe seen jafe-jafe yi mën a wàññeeku ci période bii nii.